xam nga ñoom ay communicateur lañ. Mhm. wàllu technique de communication ñoom. dëgg la kenn doon ko jàngal. dëgg la dëgg la macha lu dëgg. dëgg la. mooy waral ñuy jël baat yooyu di ko di ko defee noonu. dëgg la. benn sëriñ bi naan wax Cheikh El Hadj Malick Abdoulaye anhu moo daan wax ni. ndeysaan. soo junjee junj nag mu tëxe leer. Mhm. waxal baat ba te boo noppee laali doom. dëgg la walaay waaw ñu laali doom. <laughs> walaay doom. waaw naa laali doom moom kay mardi ba léegi maa ngi laal doom. li <laughs> ngeen di waxtaanee lii. Uh-huh. dafa solo. dëgg ndax penc mi lu ne lañ far di waxtaani uh-huh. lii nii sax nit da ko war di waxtaan ak doomam. Uh-huh. doom di ko waxtaan ak baayam. baay di ko waxtaan ak yaayam. ñu koy waxtaanee. dëgg ndax ku ci nekk foo ci toll xam lu xew. dëgg la fi ngeen toll nag day lu fi yàgg. Mm-hmm. coow li di ci am saa su nekk. Mm-hmm. te tem bii ngeen ci indi léeg-léeg duñ ko indee nii. ma mm-hmm. ca ma sa waxtaan ci rajo bi ma noppee. Thierno Mountaga ci la ma yónnee woon lii nga gis. Thierno Mountaga. ci li ma yónnee woon document bii ngay gis. ne ma man day daanaa déglu ko ci waxtaan. waaye waxtaan ci te te farloo ci fenn da ciy jafe <laughs> mu ne ma te tëral ko rek waxtaan ci ba mu jeex nun <laughs> ñëpp la ñu war a def boo ko defee ki ki bëgg jël <laughs> ki bëggut bàyyi ki ŋaañ bàyyi soxna déggan bi àddunay dox ci loolu ca jamonoy Ibrahima la départ moom ak waa këram ak doomam ak yooyu góor ak jigéen dëgg la muy dox nag ba subhaanahu wa taala yónni ku baax ku jox Muhammad mhm. sallallahu alayhi wa sallam maa ngi dégg cofeel gi ngeen am ci moom ci keroog bi ñuy gàmm ngeen toog fii wallaay jël naa tax sax bëggoon a ñëw far mu jeex ay waay ay soo ñëwoon sàll loolu dinañ neex loolu sàll nga mhm. kooku bi ko yàlla yónnee mhm. sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne aw cax la ci àdduna si daf ko war a firi door a dem dëgg la lépp li aw cax ak lu mu tuuti tuuti war na ko firi door a ñibbi dëgg la waaye amul lu mu far a bàyyi mu ñug ñugal dëgg la bi mu ñëwee fekk fi loolu ñu ñëw Madina dafa am ñaari yëf yu fa xew eh, Serigne Ndiaye bu njëkk bi mooy jigéen ju mu àndal ñu jóge màkk ñëw Madina ak kum fa fekk dëgg la kenn ki umu ummu Habiba kenn ki ummu Atiya dañ daan xarfal nag jigéen mu woo kenn ko mu ñëw mu ne ko waaw la nga yoroon yaa ngi ko yor ba léegi la nga yoroon ci sa loxo yaa ngi ko yor ba léegi mu ne ko ah waaw di xaar nga ne ma xaraam na ma bàyyi ko wala nga ne dagan na ma kontine ne teg mu ne ko dagan na kat bi ne ko dagan na moom sallallahu alayhi wa sallam hmm? ah, dagan na de hmm. mu ne ko alhamdulilah kon mën naa continuer mu ne ko continuer hmm. waaye nag day day aajoo ma defal la séminaire fi coow li nekk fépp nag foofu la mooy def na ko dagan na mhm. mais kaay ma defale séminaire mhm. formation ndax lu yàqu ci penc mi sëñ njaayloo loo jom yee ko yàq mhm. mu ne kaay ma defale séminaire mu ne luy séminaire bi mu ne ko li ngeen di dindi jigéen da ko soxla jëkkëram soxla ko kon boo ko yóbboo lor ko lor jëkkëram mu ne kon nag xamal na nga koy defee daal di ko ceen limal nag ay njariñ ci boo ko defee na mu ko war a defe loolu nag moo doon continuer di wéy nit ñi di ko def adduna di ko def ba bu yàggut ci ay vers 1997 yooyu te loolu xam nga ne yàggut coow li na koru nag lu tax parce que benn député bu jigéen fekkee na lël mu tiit ca yóbbu yëf yi ci seen mhm. assemblée ca mhm. congrès ba mhm. congrès euh, euh, anglais yi wax ni lii normalul nit kenn nit sax la waxoon moom waxul góor jigéen waxul jigéen def ne nit rek léegi nag coow li tàmbali buñ ko def nañ ko def buñ ko def nañ ko def mais bu lislaam ñëwee day xool ginnaaw ñu ngi ko doon def. Mm. ku baax ku ñuy wax Muhammad. Mm, sallallahu alayhi wa sallam fekke ko. Mm. jigéen ñi def manifestation bu rëy ñëw fekk ko ca kër ga. Mm-hmm. ne ko diw mii day def nangam. mu woo ko mu ñëw. mu ne ko yaay xarfal yaay xarfalaati mu ne waaw. quoi noo koy defee mu wax ko mu ne ko dee ko défini te bul ko défini. Mm-hmm. donc fi coow li nekk soxna Degen. Mm-hmm. mooy ñi koy def ñana. ak ndax jaar nañ ci ci yoon. su ko defee ñi koy def te mënuñu ko. ñooñu ñoo waroon ñu former leen rek parce que xam nga lu xal aada bu sharia ñëwee reconnaître ko rek nekkatul aada léegi sharia la ah <laughs> kon dégg ngeen ko li ñu bëgg rek wax nañ leen ko euh, Zey li ma la waxoon démb rek ne la coow li bëri na xam nga loolu ci ay kon laa ko jëlee coow li bëri na coow li bëri na coow li bëri na waaye li ñu bëgg rek ñi nga xamante ne ne que seen xam-xam màcc na ci wàllu diine ku ci nekk ñëw wax gis ngeen ko keroog balaa élément yi ñëw euh, suñu sëriñ boobu ñu oowee ca Louga ah, waa kër suñu maam euh, Chérif Abbas Sall fatabakàlla macha allah euh, defe naa ni mooy Mouhamad Lamine woote woon na wax ci li nga xamante ne mooy gis-gisam li juuti lii oustaz Aliou Sall ñu invité ko jeudi mu ñëw wax ci li nga xamante ne nekk mooy gis-gisam professeur Tall wax ci lu gis-gis léegi nag ànd ak lu ci mën a ne alaaji la nga waxoon rek mbir mi nak la boo xamante ne dañ ko séddale ku ci nekk soo ñëwee jël sab waaw xam nga fee gën man fi may commencé mooy. Mm. ki dugg sàng te jooy. Mm. ah xale bi. ak li muy jànkoonteel. Mm. te làq trente yu tegal. dëgg ki topp ci moom dara kam. bu dee aada jeet bañ ko ko defee deret ju bari jaa liñ diital ba ñu arrêté ko moom dootuñu ko def. jërëjëf. loolu la wax. dëgg la. waaw. dama foogoon ni lu dagan. lislaam dagan ko mm. daganal ko mm. bu ci loraa nga duggiyee mm. lislaam day daati dagaase wu ak jaamu yàlla nekkatu fa ndegam loraa ngi dugg na ci ndegam ñoom ñi jàng ñoo ni l'islam daa war a la ndax kii wax ni am na ker ci diggam ak jëkkëram am na lu koy métti fu mu toll te ñu mel ni moom a tax tem bi jóg góom la budul wér oustaz am na lu mu wax. Mm. wax naa la fii ne la jëkk ñi doon aada. Mm. bañ ko daan def amuñu problème. Mm. su yaatoo ba ñeneen dugg ci. te ñi ci dugg bokk ci ñoom. kon war nañoo seetaan seen bopp ba seen ñi koy def te lor nit ñi. <laughs> Ah, loolu jëlee ci ligne bi jëlee ko ci bi. allo. salaamaaleykum soxna si. waaw salaamaaleykum euh, na ngeen fanaanoo. jàmm. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di rafetlu ci émission bi. jërëjëf. maa ngi nuyu sama nijaay Ndiaye Lo Ndiaye ma sopp ci sama xol. maa lay <laughs> gën a sopp maa ngi lay fay bu baax. <laughs> di la ñaanal jàmm ak salaam gudd fan. ko yàlla boole. allahumma amin eh, Adja Dégène maa ngi lay nuyu yow sama doomu baay nga. wallaay Diallo Diallo sargal naa la. <laughs> Diallo jéeri Diallo man maa ngi tudd Adja Ndeye Diallo maa ngi France. Adja Ndeye Diallo ziar nañu la bu wér. kay yal yàlla nangu ziar. amiin yàgg na bëgg a dugg ci émission bi. bi ngeen ko commencé ba léegi waaye yàlla def na mënuma woon fexe ba dugg tey daal la ko yàlla dogal. waaw man mii di wax ak yéen allo. allo allo ndey bisimilah bisimilah. waaw man mii di wax ak yéen man affaire xarab jaar naa fi ndax fi nekk nii maa ngi ci ay cinquante sept ans. dëgg la. waaw yàlla may na ma tamit cinq bant. macha allah. waaw waaye wax dëgg yàlla de mësuma ci gis lu ma naqari musuma ci am lu ma métti. dëgg la Diallo. waa ndax xam nga comme ni ngeen koy waxee toujours rek dafa am xëy na dañ leen ko defeewul na mu waree. dëgg la. waaye ñi nga xam ne dañ leen ko defee nu mu waree. Hmm. ñi mel na man musuñ ci am benn problème.